waaw ñu nga ca préparation ba diggante ordinateur ak Ibou Ndiaye Obali ordinateur yaa doon laaj ponkali ponkali a ngoog yaa doon laaj ponkali génn nga ca Ibamar jël ko génn ci terrain gaal gi jël ko jëlati ko laaj ponkali Ibou Ndiaye ngoog moo taxit ponkal yaa ngoog moo taxit ponkal yaa ngoog Ibou Ndiaye

mu ngi noonu final ba ca des fii ngeen egg nii yéen ñaari mbëri yal na fa Sénégal àgg ci coupe du monde bii ñu dëgmal war a jouer suñu premier match suba incha allah Ibou Ndiaye li la yóbbu final yal na yóbbu fi Sénégal ordinateur li la yóbbu final yal na yóbbu Sénégal Ibou Ndiaye ëbbali à droite ngeen xonq teg ca morceau bu weex. ordinateur à gauche ngembo xonq tey ngemb yu xonq yo finalu Ibou Ndiaye boo diree ko ci kaw ordinateur dina la daan jël bu gaaw li nga doon def gaay lañ la def li nga doon def gaay lañ la def Ibou Ndiaye Obeuly daan na ordinateur hey li nga doon def gaay lañ la def li nga doon def gaay lañ la def Sénégal bukki amateur yi le promoteur des jeunes espoirs revient le 27 novembre ci arène nationale bii yoon nag dafa nar a gën a tàng gën a neex ndax amateur yépp ko namoon moom Sam Mbaye Fall njiital Sam Production mu ne le 27 dama leen andil combat bu rëy combat bi dox ci diggante ñaari goxi làmb ndax ku wax Jacob Baldé wax Pikine wax Ama Baldé ku wax Ndigal wax Géejawaay wax Balla Gaye 2 muy grand combat di combat bu amateur yépp di xaar la ca gën a tee neex nag mooy bile drapeau la ñu dippe Omaro Omaro bu Serigne Saliou Omaro bu Cheikh Béthio Thioune Omaro jàmbaari Serigne Serigne Saliou Ndigal Thioune nekk ambassadeuru KPI gannaaw bu yàggul la ko waa Raaya Awards daal di def communicateur du peuple sàmbay ne fet bi kon ci arène nationale le 27 combat spécial ba lay brisé bu écurie jàmm ji kër Mbay Fall moo nar a jàkkaarloog confiance bu écurie Tivaouane Peulh mu ne combat spécial boobee nag mooy trophée ETDR di établissement Touba Darou Rahman sàmbay fa seen leen a delloo njukkal ci seen njàmbaar ak lu baax li ñuy def ci là ca combat préliminaire ya premier diggante jéen bu déggoo ak yandaa bu bawol ak sura mbër bu njàmbur Casamance mbës bu Malika nekk écurie ba ci Seras mook Siteu Lawbe bu ressortissant Fatick jam zo 2 bu Bosco Sow ak bébé lees bu école de lutte Balla kooba bu Caaroy mbooloo ak bébé ama bu école de lutte Balla Gaye njool waalo bu écurie Grand Yoff mbooloo dana jàkkaarloog Tyson bu écurie Songane Gueye metti bu Kër Massar ak Antu Njaay bu Dalifor mbooloo bas 2 bu Caaroy sur Mer ak maaf gi bu Badajon ñu ne bile bés lamb la moo tax sàmbay daal di ciy dugal jàppale lamb muy sponsor officiel ya ñu ànd ceeg établissement Touba xam ne li jëm ci wàllu bâtiment ci wàllu génie civil ak mbooleem lu jëm ci wàllu BTP bàyyil ak ñoom ànd ceeg waa nuuru la jus bi baax te wóor ñi nga xam ne façon jus naturel boo bëgg am nañ ca buy seral xol rax ca doole ñu indi leen bu bees tax bi sénégalais yi doon laaj muy jus gingembre ba ñu ànd ceeg alburax automobile ñi nga xam ne li jëm ci wàllu vente ak location automobile bàyyil ak ñoom dañ la koy defal ci njëg yu xéewale te mucc ay ànd ceeg laay bu deef commerçant bu mag bi nekk ci Petersen en face Orca di jaay lépp lu jëm ci wàllu habillement prêt-à-porter yu amul fenn ànd ceeg waa Uber muy boisson énergétique bi nga xam ne boo nekkee compétiteur nga xam ne boo nekkee sportif moo war a nekk sa xarit ndax moo lay encourager ci ay entraînement tey dalal sa yaram ànd ci bi yëngu ci parfum la vitre parfum de chambre ay eau de javel ay savon liquide ak ay savon poudre maanaam lépp lu jëm ci wàllu setal ak xeeñal xet gu neex ñoom waa Penipro ñoo ci teg loxo ànd ci nag ak waa Go Parfum nga xam ne façon parfum boo bëgg ci àdduna jokkoo ak ñoom ñu jox la li nga bëgg kon mbokki amateur yi bés baa ngoog le 27 novembre ci arène nationale muy combat yi ñu dippe Omaro bu Serigne Saliou sàmbay ne entrée dama koy yombal ba dee bu dee supporter 2000 la amateur 3000 francs bu dee kon mbokki amateur yi bés a ngoog biir bés yi la ko nettali muy diggante Zago Baldé ak ndigal bu école de lutte Balla Gaye kon ay ca ñu dem ci arène nationale le 27 novembre. Yami njur kaare fi paasin jogo njanjaay la ka dogo